jàngat ngay def parce que euh, entre tas ensemble bi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi am na ñu ko compliqué de trop ne pour ñu dem fi élection ci diggante bi xaalis amu fi benn parrainage de poser problème à moins que président tas ko ba pare di gouverner par ordonnance est-ce que solution la ci tas ensemble wala bàyyi ko mu wéy moo gën. benn euh, gouverner par ordonnance mënul nekk fii parce que constitution pouvoir bu mu jox président de la république pour mu gouverner par ordonnance dissolution de l'assemblée nationale bokku ci d'accord donc loolu mënoo ko mënuñ ko sa indi ne bu fekkente dañ ko dissoudre parce que loolu conséquence la ci dissolution de l'assemblée xam nga damay faral di wax ne dissoudre l'assemblée nationale ginnaaw bi mu amee deux ans du question de droit lu war a mën na nekk c'est bien possible le président en a le plein droit le 12 septembre à minuit bu ko neexee deux mu bind décret bi tas ko mais dafa am conséquence politique et économique et c'est tout de suite nekkul looy xaar deux mois pour nga yëg ko bi nga ko tasee ngay njëkk ngay sentir boo ko tasee minuit zéro minuit deux ngay sentir conséquence yi c'est pas un débat Et ce n'est pas un débat d'ailleurs politique. Quand on se dit ça, je explique Ben, l'article 87 de la Constitution, le président de la République peut, après avoir requis, après avoir recueilli l'avis, après avoir informé plutôt, le, le ministre et le président de l'Assemblée nationale peut dissoudre l'Assemblée nationale. Nous dissoudre. mais bu ko dissoudre ci article ci même article 87 bi daf ne bu ko dissoudre il est impératif mu bind ci datu élection yi kenn lay am te bu koy bind doo jël sa temps di bind constitution daf laa tënk daf la na au plus au au plus au moins lu gën a ndaw c'est 60 jours au plus tard c'est 90 jours Donc, dans tous les cas, tu as euh, trois mois pour organiser des élections législatives. Trois mois, au maximum. mënu ko dépasser mënul moins aussi 72 jours mënul moins deux mois loolu la constitution bi wax. donc boo ko tasee aussi jàppal ne ci décret boobu ngay liir diñ ci gis dina la wax ne élection dina am ci datu nàngam loolu la constitution wax boo ko bindulee violé nga constitution bi loolu la constitution bi wax mais loolu du problème constitution dafa am. le code électoral am la loi sur le parrainage est très claire daf ne les candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives sont astreints au parrainage amuñu choix ils sont obligés ñu dem wuri wëri parenage mooy ala kulli al boo bëggee doon candidat da ngay ut parrainage bokk na lay tax ngay sa candidature dagan obligatoire et la loi sur le parrainage puisque c'est obligatoire daf ne dafa période recensement des signatures ak période mu mu tëj ba pare nga joxe sa signature le temps d'une d'un contrôle et d'une validation ça dépasse ça c'est juste au moins cinq mois kon boo ko def puisque constitution de la tënk fii trois mois mënu ko dépasser alors que parrainage nee na la élection législative ak présidentielle ñi ciy bokk mënuñu ñàkk uti parrainage kon est-ce que di nga mën a respecter la loi sur le parrainage non te mënoo violer la constitution no nooy def <laughs> loolu ça c'est technique beneen bi mooy mhm. dafa am lu ñu tuddee la loi des finances initiales am na damay dégg ñu naan budget bu daaw bi dañ koy reconduire ça c'est loolu amul ça c'est loolu amul fenn on ne peut pas reconduire le budget de de cette année pour euh, pour 2025 amooy loolu ak ba fan fan ko fa ñi ko wax fan lañu ko teg nañ la cité benn article ça n'existe pas et loolu manta raison mënu ko nangu soxlay état wu Sénégal 2024 mais mënul nekk même soxla en 2025 on a eu un budget de 7000 milliards pour du fonctionnement et de l'investissement lu ñu réaliser en 2024 bu dee moom la ñuy xaalis boobu la soxlawaat pour defaat la même chose mais loolu loolu sëñ mënul ne léegi nag te député keese ñooy voté budget Mm-hmm. amul kenn kuy voté budget ci àdduna bi Sénégal fii lu dul ay député assemblée boo ko tasee amul ñuy voté kon kon député bi kon dangay gis ne l' assemblée nationale d' accord elle existe que de nom mais su dans le fond existé wul parce que mënoo woote ay nit bu ñu ne ministères yi lii lañ leen di tabal pour l' année 2025 duñ la mën a wax également le budget de l' état du Sénégal en cinq ce sera exactement 8000 milliards wala 10 000 milliards que ñoom ñoo ko war léegi loolu loo koy def te le budget les marathons budgétaires mais avant le 31 mooy mooy la dernière soirée non. le 31 mhm. décembre. Mhm. léegi le lendemain c'est le premier dañu dugg ci année 2025 et def loolu dafay jëlaale lu ñu tuddee l'année mille vingt cinq le débat d'orientation budgétaire xam nga amagul foofu la ñuy waxtaanee lan mooy am ci ci ci novembre octobre novembre décembre. le débat d'orientation budgétaire ce bureau de l'Assemblée nationale moom moo violé la loi tere mu am te dafa waroon am léegi loolu xam nga rek léeguñ ko dafa war a am day am parce que loolu loi bi moo ko wax et la le débat d'orientation budgétaire tellement dafa am solo parce que daf lay woon état Sénégal lan moo nekk sa planification pour 2025 lan la lan la war a soxla pour budget 2025 mais également mu defal la bilan sur l'exécution du budget li nga xam moom moo nekk le budget en cours wax la ne daaw yéen ñu voté loon 7000 milliards lii lañ ci def lii moo des léegi ñu ne la aussi daaw déwén mu ngi ñëw bëgg nañu dem ba 8000 milliards lu tax parce que ainsi suite lu tax parce que ministère bi bi nee na besoin yi lii la lii lañ koy defee léegi loolu xam nga waxaguñ ko loolu dafa war a am te loolu mënul toog di xaar dafa war a am le ministre des finances dafa war a am assemblée député yi. parce que moom mooy annoncé le budget des ministères et le budget de l'état de l'état du Sénégal léegi nag boo ci dugalee mbirum politique d'accord l'assemblée mun na tas le 2 septembre c'est tout à fait légal aucun débat mais les conséquences sont plus que xaalis du problème mais juridiquement parlant c'est ça le problème et techniquement c'est un problème parce que ala kulli gaal député dañuy voté budget bi te boo ko tasee mënuñ ko voté kon da ngay tànn te bu dee da ngay xaar ba mu jeex mooy da ngay xaar ba décembre passé décembre passé mën nga bu la neexee nga tas ko parce que am nga am nga euh, budget bi doxal bi tax sa gouvernement bi ñu ta bi ñu nommé mhm. bi tax mu doxal parce que 2024 bii à à minuit le 31 décembre mais bi euh, li nga consacré woon ci bilan ci ci budget 2024 bi mais da dem ci beneen beneen beneen année budgétaire léegi nooy def alors que pour année budgétaire bi exister ce sont les députés ñoom ñoo koy voté léegi nooy def tu vas faire quoi parce que tu as le droit de dissoudre l'Assemblée nationale politiquement da nga koy dissoudre ça c'est pas dissoudre dissoudre ko du débat débat bi mooy boo ko dissoudre conséquences yi lan la lan lay jur ak fan lay yóbbu réew mi ak lan lay lan lan moo am lan mooy am président il a plein le il a le plein droit tas ko loolu de débat bi de mais boo ko tasee lu la ciy fekk mooy problème bi. conséquence yi conséquences yi ak politique e juridique. parce que wax naa la cinq loi sur le parrainage nee naa la lan la constitution bi wax boo ko tasee deux mois au moins da ngay amal élection trois mois au max au au plus da amal élection boo tasee décret bi euh, assemblée bi da ngay bind ci décret bi nga tas nga ne cependant les les prochaines élections auront lieu point loolu du président mooy toog conseil yi naan ko wanoo jàppal nañ ko yóbbu décembre janvier déedéet ko constitution moo la obligé xam nga ko man mii xam naa ko bu ko tasoon léegi may la élection yi jour bi lay am léegi ma wax la ko bu ko tasoon le 12 may la élection ñaari dat yi la mënu ko weesu su ko defulee violé na constitution bi su manqué deux mois violé na constitution su dépassé trois mois violé na constitution et je pense pas que qu'on va violer la constitution je pense pas et je pense pas également ko va violer le code électoral je pense pas et violer le code électoral mooy nga organiser élection ci trois mois yi mooy violer nga code électoral violer code électoral ak moom mooy nga bañ ko def ci trois mois jëm cinq mois violer nga code électoral alors que la constitution pour nga laal ko ñaari mbir la soit une révision constitutionnelle nga jaaree ko ci assemblée national soit nga def référendum alors que boo décidé assemblée national amul voie parlementaire existe wul parce que les députés n'existent pas donc lu ñuy def voie parlementaire et cette voie parlementaire c'est une élection encore donc mënoo organiser un référendum plus des législatives à coût de milliards donc tu tends vers les 10 milliards pour organiser benn ñaari élection et je pense pas que l'État atteint loolu d'accord donc su ma la bu ñu tas ensemble. non c'est pas impossible c'est bien possible. c'est possi c'est possible. waaw maanaam bëgguma waxee foofu <laughs> mais euh, boo xoolee ci wàllu conséquence. ci wàllu conséquence juridique économique politique yooyu yëpp euh, bàyyi ko mu dund moo gën ñu tas ko. waaw parce que boo ko bàyyee ba décembre xam nga day fekk député yi ñu voté loi parce que bul xool. mais est-ce que DPG war na ji euh, débat d'orientation budgétaire war na jiitu DPG. non non xam nga DPG chaque chaque année la war a am chaque année dafa war a am te DPG daf ne balaa député yi di dem vacance non excusez-moi DOB mooy débat d'orientation budgétaire avant ñu dem vacances hmm. donc c'était le le le le le 30 xaw ma 31 juillet le 30 juillet plutôt la ñu waroon dem vacance avant ñuy dem lañu waroon dajee def loolu maintenant li nga xamante moom mooy la déclaration de politique générale hmm. loolu mun na am par exemple ci ci ñaari yoon ci ci ci régime ñaari yoon ci mandat parce que mu ngi dépendre ci le nombre de fois li président di nommé premier ministre. d' accord donc si aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko moo nekk ministre am pendant tout son mandat donc on n'aura que qu'une déclaration de politique générale une seule bu changé keneen également on aura une autre bu changé waatee mu indiwaat parce que day am son gouvernement donc. waaw c'est ça effectivement. léegi nag. d'accord eh, léegi léegi nag problème bi mooy. li nga xamante ni moom mooy déclaration de politique générale. Mm. pour man constitution dafay waxee ci xel comme ni yàlla di waxee en parabole. moom day wax mm. junj la. Mm. mais yow yaay indi noo koy leeralee faram fàccee ko ba mu leer la constitution moom elle parle elle se fonde sur des principes mooy que ne dafa war a am nu muy amee waxu ko daf ne daf ko war a def il doit le faire il le fait. et surtout son futur présent euh, boo xamante ni tout de suite la. léegi ni mu koy defee nag c' est le règlement intérieur léegi règlement intérieur bi boobu noonu li li wax ni ñuy defalee ñuy doxalee li ñu tuddee déclaration de politique générale mais règlement intérieur boobu noonu ces articles là nekkuñu fa. de 97 98 et 99 nekkuloon ci lu ñu tuddee le règlement intérieur parce que dañ ko dindi woon léegi pour ma pour mu mën ko def mën a sukkandiku ci timing da nga koy indiwaat pour mu dagan l'instant député yi dans tout ça mooy que ne ñoom wane nañu pendant deux ans danoo nekkoon nekkoon ci caaxaan nekkoon ci tappale nekkoon ci loo xamante ni dara du ci dëgg ba pare dugal ci nit Amadou Ba en tant que premier ministre. Mm. et loolu j'en veux à tous les députés à tous les députés. qu'ils soient de l'opposition du pouvoir vice versa nga tourné ko j'en veux à tout le monde. Mm. c'est simple bu ñu koy indi Amadou Ba novembre de mm. député yooyu ñëpp a xamoon ne. warul def déclaration de politique générale sur la base de l'article du règlement intérieur bu ñu leen jox ñenn ñoo ko dénoncé Guy Marius Sagna Mamadou Lamine Diallo ba pare ñu recevoir ko assemblée nationale sukkandiku ci réglement intérieur boobu nga xamante ni c'est un faux il n'est pas en tout cas à jour di ko poser question bëgg utiliser ay droits yoo xamante ni nekku fa par exemple opposition boobu di wax ne dañuy def ce qu'on appelle euh, dañ koy pousser à la démission fooy basé wu ko la motion de censure n'existe pas dans la dans le règlement intérieur. Mm-hmm. léegi léegi lu existé wul nan nga ko mën a évoquer pour réclamer sa droit. Mm-hmm. les députés yi defoon lool mm-hmm. motion de censure nekkuloon ci règlement intérieur bi. pourquoi ces députés là ont voulu évoquer ce droit de faire une motion de censure alors que nekkul ci règlement intérieur bi nga sukkandiku ça c'est du faux et c'est l'usage de faux le faux c'est le règlement intérieur l'usage de faux c'est d'utiliser de faire une motion de censure alors que nekkul ci règlement intérieur bi jamono jooju bu ñu ko wëree duñ gis 97 la déclaration duñ gis 98 motion de censure duñ gis 99 le vote de confiance et pourtant ces députés là di Yewwi Askan Wi def nañ loolu ah. Mhm. c'est-à-dire qu'ils apprennent également ces députés sénégalais à respecter les sénégalais. Mmh. les sénégalais ne sont pas assis ne sont pas dupes. ils discernent. Mhm. kii wax ndax intérêt am ak kii wax pour wax. Mhm. et tous ces députés là. lañ doon wax pour wax de seen intérêt kese lañ doon wax foofu noonu mooy que sama intérêt coalition sama intérêt coalition ñaar laa ci dul mere Guy Marius Sagna et Mamadou Lamine Diallo ils ont été francs et lu ñu wax moo fi am et barki démb démb li am loolu lay prouver mooy que ne ñun ñëpp ensemble nangoon nañ ne suñu sukkandiku woon règlement intérieur bi baaxul donc si on faux règlement à la limite nous tous des faussaires et en droit le faussaire mm. merci beaucoup Demba Thioune euh,